li gën a fas ci bopp xibaar yi dañeel ba tey njëgu dund gi nga xam ne nguur gi daal nañu koy woyafal mu nekk mbégte ci askan wi waaye kuréel gi nga xam ne dafa rek ëmb wooy jëfandikoo yi ñi itam ku ko mel ni ASCOSEN wala SOS consommateur ñoom ñëpp nag boolantoo nañ rafetlu ko waaye itam am nañu pexe yu ñu laal bokk na ci daal nguur gi gën leen jëmmal ba ñu teg bànqaas yoo xam ne dina tax ba njëg yi nga xam ne daanaka génn nañ ko ñëpp mën ca daal di topp addu jëmale itam ci weneen ndogal woo xam ne bawoon naa ci ñi ci réew mi bokk na ci taxe bi ñu teg ci ciment wile tolloon ci ñetti téeméer te ñu koy neenal mbir moom itam naam nekk na xabaar gu neex ci askan wi waaye nag nee nañu boo mooy mun na mi ay njeexital ci rek wàllu woobule moo nar a nekk nag mbir woo xam ne itam nar nañ koo gis waaye itam daal koy nag nemmeeku ci rek lépp lu jëm ci wàllum dëkkuwaay Euh, tey jii ci àjjuma ji euh, fukki fa ak ñeent ci weeru juin le euro 2024 tàmbali euh, jàppale ne daal boobeek jongante nag moom ni ki tey jii équipe de football bu Allemagne te daal di tàmbali aj nañ ko nag ginnaaw ay at lu ko waraloon di mbas mi di Covid 19 waaye ni ki tey jii daanaka lañ ko fasciné door ci wàllu tàggat yaram mbokk yi léegi na fes bu leen taaxiloo ñëw ak ci àttan gi. dalee nag jàmm mbokk ni leen ko Suzanne dem junjee léegi noonu lañu koy dooree wax ci kuréel bi ëmb way jëfandikoo yi ñoom ñi nga xamante ni kon ñu ngi rafetlu dogal bi gouvernement bi jël wàññi njëgu leen ci dund gi Omar Ndaw moom nag moo jiite ASCOSEN nee na daal faaw ñu fexe rek góor góorlu leneen loo xamante ne askan wi dañ koy faral di jëfandikoo loo it ñu wàññi njëg ci naataangoom maître Massakhna Kane mu jiite SOS consommateur mu itam weneen xalaat daal di tekk bokk nañ tegi bànqaas boo xam ne da gën a tax ndegi ñu gën koo jëmmal waaye itam sàkku ñu indi ay coppite ci kilifa yi nga xam daanaka am nañ lu yoroon ci wàll ga te nag sax ñoom seen nguur lu bari laaj ja si kàddu yu Momar Ndaw bu Ascosen ñoo gaaw a tàccu ndax njëkk yi gouvernement bi siiwal yëf yi mënuñu ko jëfee tant que waxtaan nañu ak conseil de la consommation si loolee sax le gouvernement bi waroon a njëkkee comme produit la yoo xam ne dañ ko homologué pour ñu changer ko il faut que ñu woo consommateurs yi ñu toog ñu woo ñi nga xam ne ñooy jaaykat yi ak producteurs yi ñu toog def réunion wax ba d'accord ci benn prix ne lii la su ko defee ministre bi jël arrêté wax ne prix bi lii la. ngir wàññi njëgu dund bi fii si réewu Sénégal si ay kàddoom faaw rek nguur gi fexe. ba lawal waa ñi njëg yooyee si yeneen xeetu produit yi askan wi di dundee. Euh, prix yi nga xam ne moom lañ annoncé nit ki mun na ko respecté ba pare yokk leneen yokk ton comme ni ñu ko defee yokk ton yokk euh, meew yokk euh, soble comme pomme de terre et cetera léegi moo tax ñu ne kon lépp loo xam ne moo jëm ci li ñuy dundee chaque jour na ko état boole ci yi nga xam ne moom lay fixé. SOS consommateur moo ngi rafetlu dogal yi nguuru Sénégal jël. waaw dañ koy rafetlu. waaw ah, di wax ni nañ dolli parce que ndogal yi baax na mesures yi baax na euh, mais xam nañ ni ay mesures yu njëkk la que dana am certainement yeneen mesures yu ciy topp. si kàddu ya maître Massokhna Kane bu ñu yem rek si wàññi njëg yi nañuy saytu bu baax a baax it qualité produit yi xool ndax jaar na yoon wala déet. njiital SOS consommateur di sàkku si nguur gi ñu tëggaat conseil de la consommation. waaw dafa am ñoo xam ne ñi ñu ngi nekkoon ci système bii passé ci gouvernement bii passé. yoroon affaire prix yi yoroon affaire commerce ñooñu dañ leen gis ni ñoom ba tey ñu nga fa di wax lañ daan wax loo xam ni dara dëggu ci nekku ci dëgg donc danger bi mooy ñooñu bu ñu continuer nekk fi du sotti. mu di Momar Ndao ak Maître Massokhna kan ñoom ñaar ñëpp ñu ngi sàkku si nguuru Sénégal it mu jël ay dogal yu ama am solo bi la yoon ba fexe rek ba ñu topp jëfee yi la dogal ñu jël ñeel njëgu dund gi. Demba Mbaye am na ñoo xamante ne dogal gi nguur gi jël ñu ngi ci wane li nga xamante ne moo leen ci naqari Mamadou Alioune Diallo jiite kuréel bi ëmb boutique ak Amadou a jiite kuréel bi ëmb boulanger yi ñoom nag ne nañ daal li leen metti mooy ba ñuy jël dogal bi saytuwuñ leen. Cheikha Cissé di ñuy tëddee ne ko waa moom mel ne na daanaka ah, daan koy laaj ca xalaatam waaye la mu bëgg daal moo di lu nu mel bu ñu ko waree teg faw rek ñu daal cee boole képp koo xam ne rek da cay yëngu. dogal bu nguurum Sénégal jël ngir wàññi ci yenn ci dund yi yu ci mel ni diwlin suukar ceeb mburu ak yeneen yi ni mel doon xalaat bi nga xam ne ni ñu nekk ci wàllum jënd ak njaay ci biir réew mi rafetlu nañ ko lool. xalaat bu rafet la ndaxte yéene léegi wàññeeku am na mbégte bu mag lay doon ci ñun ndax ñu ne ci askan wi lañ bokk ay consommateur lañu. en même temps ñu nekk ay patriote parce que ñoom dañu yor réew mi jiite ñu mais gënuñu noo bëgg réew mi. mu di ay jéego yi nga xam ne ni nguur gi bëgg na koo def ngir oyofal dundu askan wi waaye yenn ci acteurs yi jàpp ni am na lu sooxee ci anam bi nga xam ne ni moom lañ ko doxalee. fu mu toll ni décision jël nañ ko ba pare. bu ñu wooyee ñu waxtaan léegi lan la ñu war a waxtaanee. balaa ngay wax ni da ngay woote conseil national de consommation pour valider d' abord dafa waroon am lu ñu wax ay comité technique ñoo waroon réunir ba pare euh, mooy boulanger yi meññee consommateur ak état bi. waxtaan ba juboo doog a woote conseil national de consommation nga xam ñooñu dañuy valider. njiital UNACOIS waaye yeesal wuute lool xalaat ak ñoom ñi lee ndax jàpp na ni dugal nañ leen ci waxtaan gi le. booba ba tey ñu ngi laaj kenn ku ci ne buñ la soxlaa consulté dañ la nga ne li nga xalaat ci wàññi gi ba démb ci alxemes ji ñu woote woon primature pour que liñ doon liggéey ci un mois ñu gaaral ñu ne lii lañ tombé ci wàññi ko kon fekk nañ ko. ñoom ñëpp fas yéene dogu ci dogal bi nga xam ne ni moom la nguurum Sénégal di jël. ko Unacois d' accord na ci prix yi nga xam ne dañ ko wàññi di ñaan ay commerçant yi nga xam ne moo leen jiite ñu appliqué ko. mais danañ ko def ku mën continuer ku mënul tëj sa balaa ñoo jëmmal yile wàññite nguurum Sénégal dana waxtaan ak conseil national de la consommation ngir xool ci yaan anam la ñuy jaaree ba njëg yi nga xam ne ni nguurum Sénégal bëgg na koo wàññi ñu jëfe ko ci marché yi. Mamadou Kanté njëg yooyu dañuy yàgg dara dinañ ko jëmmal muy doon dogal yoo xamante ne tukki na ci gouvernement bu njëkk bu Bassirou Diomaye Faye ñaari weer ginnaaw bi ñu leen tegee ci bopp nguur gi mu mel ni nag bëri nañ ci yey yàbbi rawatina ñi ci wàllum jënd ak jaay ci di Jurbel ñoom itam boutique ya daa dañuy wax seen ab xalaat ci dañu gisee wàññite nga xam ne bawoon na ci kilifa yu yees yi donte nag ñu ciy bëri daal nañuy ñaawlu waxtaan wi nañu ko tëggee jàpp nañu bari dañ leen caabeeti du ñàkk kon ci dellu siwaat ci suñu yeneen jotaayu xibaar dañuy des ba tey ci mbir moomu di njëgu dund gi soxal na askan wi bu baax mu mel ni nag ca marché ba nit ñi rafetlu nañ ko bu uh, baax suñu ndaw doxantu woon fa Oumar Thiam ak mu ci àndal daanaka daanay tataan xabaar woo xam ne bawoon na ci jaaykat yi ak ñi nga xam ne ñu ngi jënd daanaka rafetlu nañ dogal wi waaye neneen daal wàññi teggi ñu ngi koy xaar ci yenn xeetu ñam yoo xam ne dañ koy uh, jëfandikoo waaye am nañu njàqare ci njëgum mburu mi ci kayitu gouvernement bi lii di suukar ciment diwlin mburu ak ceeb non parfumé niñ ko diglee noonu lañ koy jaayee ci marché bi nag daanaka yëf yi noonu la fi mel lii ñuul ci soow mi rek moo di diwlin njëg li dafa wute. waa diwlin litre mille cent franc la jar. mooy mooy diwlin natt bi bu dee cinq bi ñu ngi koy jaayee cinq bii nag. am melul noonu. litre ngi si dix mille cinq cent dix huit mille et cent euh, litre. mille francs. ak wàññi yi nga xamante ni njiite daal dinañ koy wax litre diwlin bi nag dinañ ci wàññi ñaar fukk maanaam bidon bi ñeenti téeméer lañ ci daal di dindi mburu nag daal di jóge ci fan fanweer ak juróom daal di ñëw ci fan fanweer ak ñaar kii nag di faral di dem ci marché yi yëf yi ànd na ci naam nag. mburu mi daal moom la ñuy ñaxtu. ñaar dërëm yi dafay jox problème borom boulangerie bi daf koy jox client bi. nañu dimbali tey gi juróomi dërëm. boobule problème nag moo nar a amaat euh, la lii di ceeb bi boobule dogal buñ ko daal di jëlee euh, kilo bi lu mu bari bari quatre cent dix francs CFA euh, ciment bi nag di jar diggante soixante douze mille jàpp soixante quatorze mille ton bi nag ñeenti téeméer dina ci daal di wàññeeku. li ñu ko doon jëndee barke démb ak démb moom ñu ko jëndee léegi nii rek yaa ngi ñëw ñu fekk oto bi dem nii wàccee ñu. suukar nag dina jóge ci téeméer ak fanweer daal di ñëw ci téeméer ak ñaar fukk wante nag lan mooy waral jaaykat yi du ñu bokk prix. des ci am ñoo xam ne bi ñoom xeebuñ cent francs am ñoo xam ne bii xeeb nañ cent franc pour yombal liggéey bi ñoom ñëpp nañ mobiliser wu bokk benn prix bu ñuy jaayee. ndorteel gi baax na lool bu ñu sukkandikoo ci jaaykat yi itam ci client yi laaj bi nga xamante ni moom la ñëpp di laajte moo di lan moo làqu ci ginnaaw yi les produits yu ñu wàññi lu ci mënti ne nag mënaguñ cee xam dara. ci boobu boobule jamono ñuy tàmbalee wàññi dundu gu seet gi askan waa ngi jooy dëkkuwaay nga xamante ni fii ci euh, Sénégal métti na am rawatina euh, luwaas naam am na sax ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ci nguur gi fi jóge defoon nañ ci ay jéego. nguur ak euh, Diomaye Faye daanaka teggi taxi yu féetewoo ci ciment bi te doon ci ñeenti téeméer nee na lu boobee mbir nekk xabaar boo xam ne ñu bari ci askan bi daal dañu koy euh, jëlee ci rek xel mu dal waaye dinañu daal ba mu tuuti mën nañu jeexital ci dëkkuwaay. amoon na taxe bu ñu tegoon ci euh, ton bu ne mu doon ñeenti téeméer deux mille francs dañuy ne taxe boobu dañ koy suspendre. taxe parafiscale bi jëm ci wàllum ciment bi nga xam ne kii di président Macky Sall moo ko sampoon ci atum 2020 nguuru Diomaye nag dañ ko dakkal taxe boobe nag mu ngi ñeeloon lépp lu jëm ci wàllum importation ciment ak livraison ciment bi nga xam ne ñu ngi koy produire ci biir Sénégal li jëm ci wàllum granulat yi ak exportation yi ñuy jaayaat nga xam ne jot nañu jaar ci taxe boobe nag bokkuñu woon ci décret bi le bi nag tollu ci ñeenti téeméer ci suñu ay koppar ci ab tonne boo jël tax na nag ba nguuru Sénégal jot ci lever ay fonds yu bëri yu ëpp juróom fukki milliards ci suñu ay koppar ca banque bi ñuy duppee banque islamique de développement bor boobee nag tax ba nguur gi mën ci financer ay politique de développement yu jëm ci wàllum aménager suuf si nga xam ne moom la ñu waroon a jox programme bi di cent mille ñu amal ci ay pôle urbain ba ñu tabax ci ab hangar industriel ca Bambilor taxe boobe li waraloon nguuru Macky Sall samp ko muy yombal logement bi nga xam ne askanu Sénégal ñu ngi koy jooy surtout ci wàllum location bi moo ne day jafe-jafe yooyee bokk na ci itam ci li tax nguuru Diomaye suspendre tax bile ñuy leeral ne sax suspension bi dañ ko cible ndax entreprise yu mag yi bokkuñ ci waaye nag ndax suspension bi day dakkal la programme bi di cent mille logements ana naka ñi di waa banque islamique di jote ci seeni koppar naka la nguur gi itam jëmmale ciblage boobee ana itam naka la suspension bile di amee jeexital ci njëgu simon bi yooyee di ay laaj bopp nit ñi waaye li leer ba leer mooy ñii di waa fonds de l'habitat social moom dinañ ci am ay jafe-jafe ndax taxe yooye ci la ñu doon sukkandiku ngir mën a doxal seeni programme bu dee Macky Sall li mu bëggoon mooy sukkandiku ci taxe yi le ngir wàññi jafe yi am ci logement yi kii di Bassirou Diomaye Faye moom li mu bëgg mooy dakkal taxe ngir fexe ba promoteur yi mën a tabaxal seen bopp ci ab njëgu simang bu wàññeeku mu doon ñaari dogal yi nga xam ne dafa wuute li leen tax a jóg di yombal dundinu askanu Sénégal man Ba ay at a ngi nii waxtaan yi amal ci langue politique gi daanaka dafa daal di rek nërmeelu moo tax nag war nañ ko gënoo dundal loole la way politique yi bëri duy jooy rawatina itam ñi nga xamante ni ñoo fare ci société bi. dem sax ba ñi nga xam ne rek ñëw seq langue politique yi daanaka ñu xel sax ci kàddu yu ñuy jógalee ak ngeex yu muy am jàpp ne daal dafa dem sax ba rek ndërmbeelul kàddu yi nga xam ne dañ ko yëkkati jaarale ko ci débat yi nga xam ne dañ koy wasaare ci xarale yu yees débat politique bi bokk na ci li nga xam ne kat mooy ay règles am solo loo xam ne mooy tax rek dundal règle démocratie bi waaye itam débat bi nga xam kat dafa wuute ci nii gisee nii ñii gisee ne le loolee sax ma nekk ci domaine bu nga xam dafa sukkadiku ci wàllum xeltu wàllum li nga xam kat mooy xel yi xalaat yi waaye tamit lu mel ni sax duñu bokk gis-gis sa ay at a ngi nii li nga xam ne kat mooy ñàkkub solo débat politique bi ci nga xam mooy espace public loolee bëriñ ay acteurs yoo xam ne dañ koo nemmeeku rawatina ci waa société civile la ba tax na daal dafa daal dëgër lool waaye tam ñu gis ne parti politique yu bëree bëri am na score yoo xam ne yu bon la loo xam ne kat amul benn solo waaye tam ci ay parti yoo xam ne seen i leader ñoom bu deful nank rek daanu disparaître waaye itam ci situation bi nga xam ne daal métti na lool am na ci ay leader yoo xam ne la leen intéressé rek mooy wax ju bari wax joo xam ne amul benn solo acteur politique yi ñoom conscient wu ne lëkkaloo bi nga xam ne que moo dox ci ñoom ak ñi nga xam ne ñooy askan wi dafa mel ni que lu dog dog boobee nekk na ci ñaari weer yi nga xam ne sax ci ñetteel alternance bi lu ko fësal mooy ab débat politique boo xam ne dañ koo gën a ñàkkal fayda gën ko ñàkk solol débat bi dafa dellu ci nga xam kat ñi yaakaar ni kat ñoo ëpp doole ñeneen ñi ay promesse ñoo xam ne ñan jàppal tànk ñoo ko def am ñoo xam ne dañuy sos am ñoo xam ne dañuy xaxar daanaka sax lu saful dalal daal askan la ñuy nekkee kon mesure yi nga xam ne sax gouvernement bi jël na ko dafa mel nikat wàññi aslëf ci nga xam ne moom lañuy dundee débat politique bi dafa daal dugg ci wàllu woowee waaye ñii jàpp ne lii dëgg la ñeneen ñi jàpp ne ay ngànnaay la ñu jëfandikoo di ratatatatat rek loo xam ne kat dañ koy daal di dëkkee kon ñu gis ne loolu amul solo ndax ñii jànguñu am ñoo xam ne amuñu xel am ñoo xam ne kat jox xibaaru wérte wéru daal loolu moo leen di gën a neex crise d'orientation am na ñàkk na ci booy politique yi ak ci langue bi nga xam ne ca la ñu nekk te loole day ñàkk a fay démocratie waaye tam pauvreté bi nga xam ne dañ ko nemmeeku ci debaa bii tax na kat ne dafa mel ni dafa gën a feebar lool rawatina ci parti politique yi ak engagement ci militants yi nga xam ne daanaka amuñu benn valeur loo xam ne kat moo nañ koo ràngoo débat bi moom amatul solo ndax saa su ne la ñu nemmeeku mooy soow soow gu bari goo xam ne dañ ko jaaral ci yéenekaay yi ak ci jumtukaayu xarala tabaski daanaka li ci des a bareetul ba tax na ñu bëri ci askan wi ñu ngi tàmbalee euh, a tukki dem fi nga xamante ni moo di seen kër ay mbokk ñu bari nag di naqarlu yokkute bi ñu nemmeeku ci dem beeg dikk bi. ca gaaru ceer euh, bu bu maraîcher ca Pikine foofee itam jëggëriñ ko laxas jaan pass wi dem ba toll ci ñetti junni. bile garage daal di xumb lool ci jamono ji nga xamante ne ni ku nekk ngi jéem a dem feete ji tabaski bi ci këram. nit ñi di jóge fu ne ngir rek ñëw jël li nga xamante ne ni moom mooy bus yi wante rek mu mel ni njëg lii dafa daal di jéggi dayoo tax na ba mu daal di jur njàkkare gu mag a mag. ah d'après nu jot a gis de métti na moom parce que maa ngi ñëw sànq dem si bus yi mais yokk nañ seen passe jusqu'à treize mille francs te fii ak Dagana moom cinq mille francs la woon kon donc xaw na métti benn côté quoi. métti dafa cher. waaye nit mënut a dem sans bagage ah eh, au moins ba ngay taxé eh, ay 1000 francs doy na yor ñaari valise ñëw naa la ay 2000 ay ay 4000 ak 3000 c'est pas du tout wante rek ca wet ga mu am ay transporteurs yi nga xamante ne nii ñoom daanaka ñu benn yoon lii di transport bi lu ci mel nii bus yi nga xamante ne nii ñoom ñooy daal di dem Saint-Louis. non fii moom règlement la moom fii moom tableau normal la tableau luxe la parce que ñun mooy billet bi bi nga tëgat bi 6000 francs dem ndax 6000 la lay dagal booy ñëw 6000 lay dagal. maa ngi jëm Saint-Louis nii. waaw situation bi. situation bi pour le moment gaa amul benn problème moom wax dëgg yàlla parce que man bi may ñëw sax defoon naa ne dana seeree nii mais par rapport ak l'an passé bi may ñëw moom sonn naa trop waaw mais comme bii moom macha allah. ñuy woo autorités yi ngir rek ñu daal di jël ndogal ci li ni mel ndaxte jàpp nañ ne mbir yi dafa daal di jéggi dayoo. dañuy ñaan euh, kii ministre des transports euh, Malick Malick Ndiaye ah, mu gën ñu mu gën mu gën ñu si dimbale ñu ñëw contrôler si quoi. te pourtant yaa ngi profité sa poos mais xamoon loolu ngay profité euh, si sa poos ba xam sa wërsëgale wala déet. ministre des transport El Malick Ndiaye amaloon benn visite ci boobu boobule gaaru Thier moom nag jot naa xamle nii daje na ak acteurs yëpp wante tamit daal di na annoncé li nga xamante ne nii muy waxtaan yu yaatu yu ñu fas yéene amal ci lépp lu jëm ci wàllum transport fii ci Sénégal. ba tey dañuy wax ci wàccaay tabaski bi dem seeti tailleur yi nga xamante ni jamono ji ñoom it euh, ñu ngi ci wàccaay gi xat nañ bu baax a baax fi mu toll nii ñu ngi njëkkanteeg waxtu wi ngir rek mën a pare ñaw yi ñu leen dénk. moo tax fi mu ne daal amatuñu sax nag fi ne fitu jël benn mbubu doomu aadama ne leen daal fi mu ne daañu def seen kéemtulaay kattan ngir pare ñaw yi joxe ko laata ñuy dugg ci tabaski bi ñu dëtmal altine. xumbute la ñu nemmeeku ci atelier de couture yi bi nga xamee ne tabaski baa ngi jege si. tailleur yi nag jamono ji dañoo fees dell ak ay commande julli gi jub si na embouteillage lañ nekk nag coono tailleur yëpp sonn na waa commande moom macha allah moom par rapport ak yeneen yi passé moom ren moom macha allah nañ leen mais ñaw nag mi ngi bu baax a baax quoi je pense bien très bien que avant la tabaski incha allah yëpp dina pare quoi. fi mu nekk nag dañuy njëkkante ak waxtu bi ngir mën a pare commande yi nga xam ne jot nañ koo jotoo ku ci nekk nag ak anam bi muy liggéeyee bu fekkee ni ñeneen ñi dañuy fanaan ñeneen ñi nag am nañ beneen façon bu leen gën a la. bu ñu liggéeyee ba 5 heures du matin du wàcc quoi. il faut nga toog ba ay midi une nga door a ñëwaat bon fanaan bi du am sens quoi. moo tax dañuy liggéey ba 5 heures ñu noppalu 8 heures 9 ñu dellu si quoi. xam nga mënoo continuer di liggéey ba ba 7 quoi day a métti. suy doo defal rek. li ci gën a am solo mooy pare ci waxtu bañ ko soxlaa ngir mën a bégal clients yi. waaw ah, yéegale ñaaw yi rek terminé waaw parce que ñun dañu bëgg di suñu suñu marketing ça veut dire dañuy bëgg nit ki bu ñu waxee ak yow rendez-vous bu jotee ñu kale ko comprendre nga wax dëgg yàlla depuis mën naa ni depuis 2002. 2003 ba léegi nii ñu ngi sant yàlla bu baax ci rendez-vous ko bu ñenn ci ñoom boucler commande yi ñeneen ñi ba léegi ñu ngi koy recevoir. waaw lee nañ ko instant nii depuis un mois waaye boucler nañ commande yi. cinq jours ak quatre clients yi moom wax dëgg fa yàlla ñëw nañ. waaw ba tey jii moom fu mu fekk commande jël ko moom. ay fan rek dinañu amal li nga xam ne moo di feetu tabaski tailleur yi ci seen wàll ñu ngi def réglage yu yi ngir mën a jébbal li nga xam ne moo di marchandise bi. ñu jeexalee ak xibaaru tàggat yaram wax ci fukk ak ñaareelu édition bu championnat d'Europe des nations nga xamante ni tàmbali nañ ko ni ki tey ca Munich match bi tàmbali nag moo dox ci diggante Allemagne ak euh, Écosse moom la ñu ubbee boobu lay jongante mu mel ni sax jamono ji Allemagne am na benn bal ndax match bi niki sànq la daal di tàmbali ci euh, ñaar fukki réew ak ñeent yi nga xamante ni ñoo bokk ci boobu lay jongante di Euro 2024 nee nañ daal juróomi la ñu njort ne dinañ egg ba ci cappaandaw ñetti at ginnaaw bañ ko dakkale woon atum 2020 li ko waraloon nag bokk na ci mbas mi nga xam ne mu gane si woon àdduna tax nag ba ñu baree bari taga tembeel seen ay yëngu-yëngu ba tax nag mbir wa daal di koy tegoon waaye ci atum 2016 dañu leen daal di tàmbali nag ñoom yokk rek ña cay bokk toll ci ñaar fukki nation ak ñeent li ñuy bëri bëri nag kenn rek moo nar a yëkkati trophée ba bu ñu ñoo nekkee ca cappaandaw ga di jongante bu mag bi ñu jeexalee ak final coupe du Sénégal nga xamante ni euh, kon nar na nekk lu rëy ñaari équipe bi ci nar a jongante di Mbour FC ak euh, académie les férus euh, du football. muy xew-xew bu mag ci wàllum taarix rawatina ci football ci réew mi ñaar ñi nga xam ne nag ñoo war a dajee ci final bi ñoo rek daanaka daan ay équipe yu mag yoo xam ne ñëpp ràññee woon nañ leen. Mbour Petite Côte Ferru de Fouta loole mooy cappaandaw édition Coupe du Sénégal 2024 moo ne day buñ koy xool ba ñu amalee tirage bi affiche bi la sax kenn xaaru ko woon na waaye football la wone ci rek dëggam ma maanaam ëpp doole nekkul na rek yaay am ndam ci alxemes gii nii ñoom requin yi daal di rek daan Jeanne bu Dakar ca teg dóor ya ñeenti bal ci ñett. ginnaaw ba ñu témb ku nekk dugal benn bala ab qualification la boo xam ne ci njàmbarteef la ñu ko am ci kanamu vieille dame bi lekk finaal nar nekk ñeenteel ci seen pataarix ginnaaw atum 2011 2013 ak 2017 ci seen pàcc ñoom waa Féru de Foot jaraaf bu Dakar rek la ñu daal di daan moom mu yoroon raaya bi ñoom tamit ca teg dóor ya lañu ñu ko làpp ginnaaw ba ñu témbawee kenn dugalul mu mel ni final bi diggante ñaari club yu nekk rek ca division inférieure yi la lu ni mel la nekk rek gulet ñu koy nemmeeku ci taarixu coupe du Sénégal ñaari équipe yi la nara rek am tey ji ab prox ndollu ngir daldi rek créer surprise gàddu raaya bi ne ko coppet yóbbu beneen pàcc la ci wàllu taarix waaye tamit lu ñu rek mën a xaatim ci histoire u Sénégal. moom Grégoire Samba Ngom di leen jaajëfal yéen bu baax a baax ci seen teewlu ak seen konte fi la ñuy yem ak ci yile jotaay xibaar si dem mais am mbégte doon ci fegg ak yow. amoon naa mbégte mu rëy jën ak yow Germaine Diouf jaajëfal itam ñi doon teewlu. xibaar yi ci kanam la ñuy dellu si bu juróom-ñetti waxtu jotee ci kàllaama nasaraan ma di ci fegg ak Tabara Diop léegi léegi Mamadou Awa Ndiaye ngeen di àndal ak ganna 7TV Soir ba leen di ñu